na yàlla ci mbaaxam ak kattanam ak mën-mënam jigéen ñi nga xam ni ñoo waral daje bi am yàlla bu nu ko rëcc mukk ndax diine leen yitteel tabarakallahu suñu mbokki bopp yi di al mustarshidina ak mustarshidaati seen taxawaay ñoom itam eh, yàlla jëme ko kanam lii seen yéene yàlla mottali leen ko waaw ndax itam bu ngeen gisee ñu ubbee waxtaan wi ma ni nañu jàng ñaan def ko ci kilifa gu mag gi fi jóge di Cheikh Sidati eh, képp ku yëngu ci diine rek mustarshidin ak mustarshidaat sa njaboot la waaw ba moo tax ñu defal ko ñaan jaal ko ñu nu ko bokkal cër bi nu am ci moom ñun moom la am ci moom waaw tabarakallahu ba tax na ñi fi daje ñëpp ñu sant leen sant góor ñi sant jigéen ñi tey jébbal euh, kàddu gi nag euh, sëriñ Moustapha te itam ngeen déglu li mu leen di wax ndax danaa faral di dégg ci sëriñ Cheikh muy mettitlu léeg-léeg ma fekk ko muy déglu conférence bu mu defoon mat na ñaar fukki at waaw bu ma ñëwee mu ni ma nit ñi day mat na fanweeri at ak juróom may wax ak ñoom mu ne ma waaye comme déggunu ma ma nafaraat sama bopp waaw comme déggunu ma ma nafaraat sama bopp kooku jam-jam la parce que sa kilifa boo ko déggul ba mu wëlbati ko di nafaraat boppam xam ne la mu waxoon boobaak léegi mat na fanweeri mën na ci am njariñ te yow déggoo ko loolu itam du tax kilifa sawar ba tax na rekk bu leen ko def jataayu toog waaw sunu conférence ba ni mu neexee sunu conférence ba na mu neexee na mu xumbe na mu xumbe na mu neexe bu leen ko wax fexe leen ba li nu fiy wax ngeen dégg ko fas ko dund ko mooy li am solo waaye bu daat mu jot nag bu nu dikkee rekk wax mu xumb neex xumb neex xumb neex mujj ci xàq tay itam amul solo ba tax na ngeen déglu ko E, ñëw na nañu tey wettali ko weetu fi sax waaye lu nekk rek dañu bëgg bu dee yëngu ngeen xam na mu toll ci nun parce que léeg ñu ni dafay jël initiative bu boppam jëlul initiative bu boppam li mu nàmp rek la tokkamtiku kooku noonu rek la toll kon ñu bàyyi ko kàddu gi mu waxtaan ak yéen ngeen xam ne nag ñun ñëpp ñu ngi ci biir cadre Moustarchidine ci biir engagement Moustarchidine ak Moustarchidat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. صلى الله على النبي الهاشمي القرشي سيد سادة بني الجنس البشري خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين بقي في دجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته fi teew yépp nuyu itam sunu bokki bopp yi nga xam ni ak ay wëllëre yi fi teew si ñii ñëw ci cadre fraternité ak amitié bu dox sunu diggante ak ñoom ñii ñëw teewal fi ay kilifa kilifa yoo cadre gouvernement ak kilifa yu fi ci cadre parti parce que délégation bi la PLP sunu Babacar yabal leen ñu ngi fi ak sunu cadre diplomatie dañ yabal ak wëllëre ñu ngi nuyu itam bokk yu baax yépp nuyu sunu mbokk murit yi nuyu sunu mbokk xaadir yi nuyu sunu mbokk laayeen yi nuyu sunu mbokk ñaseen yi ak sunu mbokk ceneba yi ak képp koo xam ni këru diine nga ci réew mi ñu ngi lay nuyu ci turu daairatul mustarshidina wal mustarshidaat beral nuyo nag ñi ko moomal seen bopp wolof moo wax ni ku dee ca marché ba yaa tàgge sa bopp mel ni kon nag daairatul xayri wal minna soxna ndey jóob ma ki nekk ci seen kanam sëriñ Mansour di seen kilifa jox leen turu daaira ñu bëgg def waxtaan daaw ñu waxtaan ak moom mu laaj leen ku ngeen bëgg mu waxtaanal leen ñu ni ko ñun Moustapha la ñu bëgg ma defal leen ko daaw donte xatoon na ndax weeru koor la te man dama am habitude weeru koor ci def activité bu bari sama travail annuel yépp ci koor laa koy def bu jotee may <coughs> ñaan nit ñi ñaan mouvement bi ñu may ma waaye daaw ni mu dikkee ma accepté ko ren nag ñu programmé ko fekk boobu yéene jiitu na waaye itam ma am benn projet de voyage ba ñu jotoon ko annoncé waaye mënuma ko woon def ndax date ba mu nga ma fekk Abidjan mu ciy jéggalu nag soxna si ak ñi topp ci gannaawam ndax bu ñu sañoon it nit bu la séddoo la mu moom mu romb ñépp jox la ko bu sañoon la mu ca bëgg rek nga defal ko ko ndax séddoo ba te keroog sëñ Mansour ma ko wax mu ni ma ndax mbir di sa cër neex na waaye muy sa cër ba noppi ña ko moom soxlawuñu ko sédd keneen ku dul yow dafa datax mu gën neex rumete bii nag looloo ci daje ba tax na kon nag rëy na ci ñun waaye wuutalewuñu ko nag ak yi ñu daan def ndax xaqiqa benn la ñépp ñoo ko bokk buñ ko soxla woon tey jii Tuubaa ma ñëw dugg dem Touba def ko waaw buñ ko soxla woon tey jii ca Medina Ñaseen ma ñëw dugg def ko ndax itam tanajalaka alkiraamu waaw am na koo xam ni benn bàyyam rekk juru ko bàyyi yu baax yépp ko jur waaw waaw waaw kon nag tanajalaka alkiraamu wa an qaribin tuqaddimuka shuyuuxu min ar-rijaal yi waaw góor gaa ko waxoon Serigne Babacar Sy waaw ba muy tàggoog Maodo ca train ba te fekk Maodo jox ko loxo ni ko du loxo kuy soog ñëw waaw loxo kuy dem la waaye loxo bi nag lépp a ngi ci góor ga dégg affaire ba ni ko tanajalaka al-kiraam waaw kay tey jii rek du pour Maodo rek waaye pour ñépp nga waaye bu ko defee nag kon loolu bokk moo waral daje bi famille bi ñi fi war a teew ñëpp teew nañu fi ci góor ak ci jigéen sunu way jur bi nekk ci seen kanam di malik ak sunu yaayu daara soxnaam waaw boo ñu fekkee ak moom da defe ni du sunu yaay sax ndax li Pape wax ni dafa am complicité sunu diggante dëgg la waaye loolu itam ci moom la parce fii ñu toll nag kenn dootul jëfanteeg ñun maa la jur dépassé nañ ko sunu fayda yegg na ci waaw waaw moom mi wóor na ko ni Seyid Cheikh rekk laa gëm bu ma nee deyal ma dee te duma ko laaj lu tax waaye léeg-léeg mu wax ma dara sama mam rek lànk ma taxaw moom xam na ko léeg sax moo cay topp di tëpp tëppal waaw waaw waaw bu yégeen ni tàng naa te bu ma ñëwee ci moom mu xaw a tàng bu ma ko ne dama laa soxla mu ni waaw ba ma jóg ma xam ni dafa bëggul ñu gisee ndax xam na ni dama tàng ma bind leetar waaw bu ko defee mu daal di liir lettre bi ni ci nee leen ko mu xotti leetar bi man la koy yónni waat maa koy xotti waaw pour wan leen rek ni leen yàlla rek ñu yilif ah ku tibbewul ci yàlla nag lu ñu ëpp mënoo ñoo def loo noonu rek waaw ah tax ah. sunu kilifa yi nag looloo tax ñu may leen ci sunu bopp li ñu leen may waaye ñoom it xam nañ ko ba luñ joxit bàyyi ñoog sunu sago ñu tëral ko bu ko defee rek kon nit ñi di ko ndax nit bu ni kilifaam rek ko te lu mu ko jox bàyyi kook sagoom yow mii taalibe boo bëggee ni da koy ñaaj du sotti ndax bi ma renvoyé conférence bi dama ci dégg ay nit ñuy soow ñu waaw sëñ Mansour sant ko mu lànk am na ñu ko wax dégg naa ko waaw ma xam ni ñoom ñoo ko mën a wax waaye sëñ Mansour du ko wax daf ni ma boo demoon ba mënoo koy du man may seet ku ko def yaay seet ku la neex mu def ko ma tax na kon nag nit ñi di yem fi ñu war rek waaw ñun xamante nañu ci sunu biir ci la ñu yaru ba toll nii waaw bu ko defee kon nag ñu ngi gërëm bokk waa daayira bi ci seen initiative ndax lii góor gi ma jama wax rek moo ci ne seen yeneen i moroom ñu nga tal yeneen yoo xam ne xamuñu ndax baxam fañ koy defee balaa ngoon yàlla dina leen fi moom te bu leen fi moomee ndax dinañ ko jox dara wala déet xamuñu ko kon nag bu leen yàlla dimbalee ñoom ñu tànn diine tànn njub tànn mbaax jël daayira jox Sëriñ Mansour muy sunu wayjur mu wëlbati ko séddee ko war koo def tay sen cheikh yi al mustashidin wal mustashidat jàppale le yaakaar na yiw la yal na yàlla motali te yàlla def ko rew mi yep jariñoo ko mu melni nak comme niko serigne bi waxe waxtan bi dafa am sujet ndax ñun dañu amul habitude di def waaraate waaraate mooy wax nit ki ba noppam fee yóbbu fitam kooku ñun xamuñu ko dañoo bëgg bu ñu toggeeg nit delloo ci xelam ba mu xam ni yàlla rekk ko ma kilifa xelam dal mu seet fu muy jaar ba déggoog moom orientation la def ndax daaw dama def waxtaan bi am mag ñu bokkul ci daayira bi sax naan ah waaye waxtaan waxtaan wi mas nga gis kuy waxtaan ci koor waxoo sax ca koor ga retard fa la fii ñu toll ak li fi mag ñi def ci diine amuñu luñuy def lu buñu dajé koor rek lañuy ñuy retard amna retard amna pire waaw kon nañu mëna wax leneen nak parce que koor nité ko fi bayyi kon nit mi fi bayyi koor bu jagul koor du dem ah waaw si si si la prière Cheikh Tijani moo si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui, par ignorance, en deviennent les victimes. Ah. Car la prière est à l'âme ce que l'engrais est à la surface du sol. Ou il l'améliore, ou il l'écrase. C'est une question de dosage, une question d'éducation mystique. gis nga jaamu yàlla moog engrais ci tool ñooyam engrais buñ ko wu rek lu mu naroon a defar ca tool ba faf ko yàq waaye nit it buñ ko defarul dosewuñu ko bu julli ñëwee wala korit da koy yàq waaye du ko defar ndax tanha عن الفحشاء كل صلاتهم إلا فكل صلاتهم فحشاء ak woor bu mënul nekk ci yow benn couverture boo xam ni day tax lu bon du yegsi ci yow lu bon it du génne ci yow ne bu mënul def ci yow loolu rek xamal ni julli ga day yokk ak caay-caay ah ba na kon nag ñu bëgg rek waxtaan tey benn sujet tudde ko un homme est une femme au service de l'humanité góor taxaw ne le jigéen taxaw ne ñu bëgg a jàppaloo ñoom ñaar nag defar ki ñoo tudde nit ngeen déglu nag bu baax góor laa leen wax waxuma bàyyi góor laa leen wax waxuma jëkkër góor laa leen wax waxuma càmmiñ jigéen laa leen wax waxuma yaay jigéen laa leen wax waxuma jabar jigéen itam laa leen wax waxuma sama jigéen bi bu ko defee nag ni déggee waxtaan bi mooy nit entreprise la entreprise bi dafa am patron yàlla mooy patron bi soxla na ay employé yu ko liggéeyal ci entreprise bi mu jël ñaari employé kii di góor kii di jigéen ñoom ñaar ñooñu nag ñoo bëgg liggéeyal yàlla entreprise bi ñu tuddee nit chantier bi ñu ko war a liggéeyee nag mooy fi ñoo tuddee àdduna mu mel ni nag yàlla kenn du ko liggéeyal liggéeyu como yàlla chef d'œuvre la soxla kon nit bu ñu paree ci moom bu doxee rek yàlla war naa xàqataay ca kaw ndax ni ku bind ku day nii diñ la nii boo nee yilif ñépp ñu nangu ko moo tax ان كلمات الرب تخاطب الكائن الانساني على مستويات ثلاث مستوى العبوديه مستوى الشخصيه ومستوى المسؤوليه اولا مستوى العبوديه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وكوي به وفي هذه المرحله يخاطب الكائن الانساني ككائن انساني يحمل على كاهله عبء العبوديه ثم لا يعني من ذلك أهذا الكائن ذكر أم أنثى أم هو رجل أم امرأة وتقوى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثانيا مستوى الشخصية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن هنا تتنوع المدارس التي منها تتلقى الشخصية فيخاطب الرجل على مستوى الرجولة لا على مستوى الأب أو الزوج أو الأخ ويخاطب المرأة على مستوى الأنوثة لا على مستوى الأم أو الزوجة أو الأخت ولكنه الرجل كنصف ولكنها المرأة كنصف وبينهما ما بينهما من تعادل ولا فضل لأحد منهما على أحد الا على قدر ما يحسنه من عمل خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اذا من عمل منكم من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ثالثا مستوى المسؤوليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وترجع هذه الآية الكريمة إلى وضع اللبنة الأولى والحجر الأساسي لبناء المجتمع الصغير الذي ينفعل بانفعالاته بناء المجتمع الكبير وان بناء قواعد البيت موكل على جنسي الذكر والانثى قلنا هن لباس لكم وانتم لباس لهن كانت هذه ايها الساده مقدمه الموضوع وضعناها في متناول ايديكم واليكم تفصيل الفقرات الثلاث معناه entreprise dama bëgg nag ngeen déglu ko parce que li leen sëriñ Pape Malick wax it moo ci ne waxtaan bu doon waxtaanu ree kaf nit dem grand place waaye ku gedd grand place yi bàyyi lépp ak nit ñi nekk ci sa ruq boo génnee bëgg nga la nga doon liggéey boo dikkee nit ñi jariñoo ko ñu bëgg nag ngeen déglu ko parce que na mën naa am am ñu ni niveau bi xëy na dafa xaw a kawe wala xëy na am na ñu ni terme yi xëy na dafa xaw a nekk lu philosophique mais noonu non sax boo teyloo tuuti rek di ko saisir mu wax ni nag entreprise bi ñu tuddi nit te yàlla embauché góor ak jigéen pour ñu liggéey ci nee na ci ñetti étape lañ koy liggéeyee étape bu jëkk bi étape bu conception la Eta bou nyarel bi, eta bou planifikasyon la. Eta bou nyeksel bi, eta bou eksploatasyon la. Boudyek bi, digente yal lak nitle. Konsepsyon bi, yal lak nitle. contrat bi ñu signante ba war a mën a ànd ci boobu étape mooy al ubudiyya boo nanguwul a nekk lenn ci kanamu yàlla lu dul jaam rekk di ngeen mën a signante contrat pour nga liggéey ci entreprise bi surtout ci étape jëkk bi étape ñaareel bi état bu planification la kooku diggante nit la ak dund gi contrat bi ñuy signantee ñu ngi koy signantee ci cadre shakhsiya te mooy personnalité gis nga dund mooy li waxoon ni dund ak yëf yi dund du benn yëf yi dund personne nit le concerné mais dund ci bopam nak personnalité nit moo Il yenn que foog mu am planification troisième étape bi diggante nit la ak penc la société moom contrat bi ñuy signé ci cadre responsabilité lay l'État donc nak ñetti étape yi ci la nit di war a jaar pour mën a génn ci biir entreprise bi ñoo tudde nit benn chef d'œuvre mu mel ni nag li ci garaaw mooy ñun ci sunu dund fii les intellectuels les étudiants les ku ne dañ lay dugal ci école ñu commencé ak yow ci cycle bu primaire boo ko jeexalee nga dem ci cycle bu secondaire boo ko jeexalee nga dem ci cycle bu supérieur soo ko décroché looy décroché ci diplôme mais bu dee ci cadre nit c'est le contraire loolu tax mu graw parce que cycle supérieur ngay commencé ndax bala ngaa defar nit am affaire ak ki defar nit ba noppi te mooy yàlla te yàlla nag mooy niveau bu supérieur boo ko jàngee ba mu jeex soo nga ñëw ci cycle bu secondaire te mooy yow mi war a defar nit nga jàng sa bopp te mooy diggante góor ak jigéen du jéem seetlu ndax nit ki dafa sol mbaxane wala dafa musóoru soxlawu ko maanaam xam bëggul xam ndax góor la wala jigéen bu boobaa li muy bëgg rek gis ko mooy ki taxaw ci kanamam fidèle serviteur la naam abdun moomin jaam bu sopp boroomam la bu déggoog moom ba lu mu tëral mu ànd cak moom bu xasee ba dugg nag yàlla nee na bu ma kenn tuddal foofu góor bu ma kenn tuddal jigéen nee na bu góor ëppee fulla dem bàyyi fi jigéen waaye bu jigéen ëppee fulla dem bàyyi fi góor wal muuminuuna wal muuminaat baaduhum awliyaau baad yamuruuna bilmaaruf wa yanhawna anil munkar waaw yàlla nee na bu boobaa bu fayda ji ñëwee ci góor mën naa dem bàyyi jigéen waaye itam bu ma bàyyee xel bu mu ko fa baax na ko yóbbaale bu fayda ji ëppee ci jigéen mën naa dem sax bàyyi góor waaye bu mu ko fa baax na jël góor yóbbaale lu tax gis nga yàlla façon yi muy waxe ci sëñ yu bari di ratatate alquran di dugg ko génn naan xale yi xale yi xale yi yow da ngay ree sax ndax xam ni alquran du grand boubou parce que l'habit ne fait pas le moine alquran du ma ni sax connaissance la déedéet niveau la wa yeggul ci niveau ba jàngal li ci àdduna bi yëpp ci xam-xam mënoo cee wax nit ñi lu leen jariñ parce que instrument yi yàlla yi utiliser ci benn sujet di changer baat yi lu mat a seetlu la parce que yàlla wax na ci diggante góor ak jigéen ñetti wax yi yaa ayyuhan naasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لم تتك وخلق منها زوجها لتخ وقل وأخرج منها زوجها وقل وأخرج من وخلق منها زوجها يلا نينا maa jël benn bakkan bind ca góor waaye jëlaat ca góor waxul ma génne ca jigéen de ma bind ca jigéen xamuloo ni bu waxoon ma génne ca jigéen rek góor sañ yab jigéen waaye ma bind ca jigéen boo amee seetlu sax xam ni jigéen a raw góor parce que ku man boppam lu mu mujj génne rek mu raw lu jëkk la du dëgg te góor a njëkk génn kon bu ko yàlla bindee ba mu mat li mu mat mu xalaataat génne keneen ci wetam wa xalaqa waxul wa mu bindaat waxul jabar de waxul jigéen gis nga lu mat a bàyyi xel la wa xalaqa mu bind waxul zawjaha jabaram zawjaha complément ah jigéen du jabar kese complément la ci góor bu dikku nit góor jaaxle waaw ah, kon nag na ngeen déglu aaya bi génnewuñu jigéen rek ci góor góor topp ca naan ko jaaral fi déedéet wa xalaqa comme xalaqakum من نفس واحدة ها وخلق خمال ني فنيو لي بيند لا نكو بيند واو كون ميم بيرسوناليتي بي تي ياو ريك مو نيك تي موم بو نياريل بي يالا نينا بو نياريل بي هو الذي خلقكم بيون هو الذي انشأكم من نفس واحدة تبي خلقكم من نفس واحدة لو أخون مبيون أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يلا نانا موم يلا نانا مولين كومبوزي بيون وخل بند leen composé yéen min nafsin waaxidatin ci benn cellule bi yoon waxul bakkan ci benn cellule fécond ah fa mustaqarrun ba ca positif wa mustawdaun ak ba ca négatif bi positif di spermatozoïde bu góor bi négatif di ovule bu jigéen yàlla nee maa ca composé Il y a une période de 40 jours. Cette période de 40 jours, cellules développées. Il y a une période de 40 jours. Il y a une période de 40 jours. Il y a une période de 40. Il y a que 280 jours, 19 mois et 10 jours. yàlla nee na kon nag bu ngeen di sar xolle ca ngénte la bu leen ma fàtte bu ñetteel bi moo wax ni wallahu bi yoon waxul xalaqakum de waxul it anshaakum de mais wallahu jaala lakum انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات بيون وخل مولين بند وخل مولين صف يالا نين بيون مالين ترلل بانين منا ام تسين بير خير خير jàppuloo ni bu yàlla waxu nit takk rab rek affaire bi yàqu parce que bu takkoon rab rek du sotti waaye nee na tëral nag ba jël ku bokk ak xeet nag def ko muy seen wéttal ca ànd ga ñuy ànd nag ñoom ñaar ma wutal leen lu ngeen di duggante génnante ba xëy doom ni put doom jaar fa jaar ba keneen génn sët ñëw nee na seetaanuma leen ma tërëral leen fu ngeen jaar ba ñooña duñu torox nee na bu ñu ñoom itam di doxi seen soxla nee na bu tudd seen baay bu ñu ma fàtte waaw uzkuruni ka zikrikum abaakum aw ashaddu zikran bu ko defee kon nag yàlla boog ci boobu étape état bu ubudiyya buy wax ak nit soxlawul xam ndax dafa musóoru wala dafa sol laata na nekk jaam rek mu mën a jëfanteeg moom bu dee góor mu jëfanteeg moom bu dee jigéen mu jëfanteeg moom état bu ñaareel bi maanaam yooyu yëpp dinañ indi détail bi mais dañ leen ci jox benn li ngeen di tudde avant propos xaw ma wala introduction état bu ñaarel bi moy ak shaxsiya moy personnalité yàlla jox la ci aya bi inna khalaqnakum min dhakarin wa unthan وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم yàlla nee na ba nga jeexalee état bu jaam nag ba yàlla xam ni séddoo na la soxlawul ngay góor ak jigéen état bu ñaareel bi te mooy état bu dund personnalité la laaj personnalité itam personnalité bu góor amul personnalité bu jigéen amul personnalité personnalité tànn góor bu yëgee ni am na personnalité ba noppi na jël personnalité jigéen def ko miroir jigéen itam bu amee personnalité ba noppi na jël bu góor def ko miroir ndax moroomam du ko rëcc ndax bu xoolee boppam ci boppam rek du gis ki ci des waaye na nekk boppam nag jël ki ci des muy miroiram ko defee ba noppi xàmmatuma seen couleur xaw ma ndax da ngeen weex walla dangeen xonq wala dangeen ngeen ñuul xaw ma ko soxlawu ma xaw ma ndax réew sàngam ngeen dëkk soxlawu ma xaw ma ba xam euh, famille sàngam mooy leen jur soxlawu ma inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla nee na inna akramakum ki gën a noble ci yéen ci man noobul gis nga noobul mooy koo xam ni ña bokkal du seen moroom waaw bu génnee rek ñu ràññat la kook ña ca des ko koy noble yàlla nag nee na kii noobul ci man waxuma ki baayam di yonent waxuma ki baayam

c'est de faux problème parce bi yonent bi dikkee la gañe yonent bi booye boo ku kenn xamul jur la waaye bis boo duggee ci biir mbaaxu yonent bi ak njubam ba ñu defar la ba noppi foo dox rek foo dox rek ñëpp bàyyi la xel waaw dootuñu soxla ku la jur xamuñu it famille boppam nekkoon nag kon ki gën a diiñ comportement moo gën a noble ci kanamu yàlla comportement nag personnalité koy yanu waaw waaye nag personnalité li ci mat a bàyyi xel mooy du classe chantier personnalité nit du classe changer la waaw amul ah. naa dugg fii rek bu ma jàngee wala ñu def ma ñu ma génn am personnalité ditit. da ngay jàng lépp ba noppi nag ñoo dugg ci biir chantier bi pour defar sa personnalité waaw boo ko defaree nag boo taxawee di góor pire ku lay jël jabar cheikh neena goor ak borom gaño duñu ben am ño xamni touba yi rek lañu am mais duñu goor waaw goor pir moy ki nga xamni ni fu ko jonga ma rombu du ko fa bëgg ba na xamni bu ne moy sama jëkkër rek ñepp wujjé mom ko fa doom rombee du ko fa bëgg ba ndax xam ni bu nee mooy sama bàyyi ñépp bëgg koo nangu ci moom mooy ki nga xam ni njagamaar du ko fa ba ndax bëgg bu nee mooy sama càmmi ñépp boo xanteeg moom góor piir noonu lay mel jigéen piir mooy ki nga xam ni góor gu ko romb du ko fa bëgg a ba ndax xam ni bu ko yóbboo ci kër rek mu am lu mu fa baax waaw mooy ki nga xam ni itam doom ju ñu doon tànn loo bu ko séenee ni moom laa bëgg mu nekk sama yaay waxoon naa leen nag ci conférence yi paase ni leen baatu yaay baatu yaay lu mu firi du tur bi symbole la waaw ah. doom ji bu ne yaay ji yaay yaay yaay ji siggi ni ko wax ma sa bopp ndax yaay ji nga wax yaay kan waaw yaay kan doom ji nag taxaw ci pénc mi jëfandiku ñu ne ah kon yaay diw ñu ne la koo dégg ñun la mooy doomu diw diwu diw la diwoo waaw waaw waaw koo dégg ñu ne la mooy doomu diw xamal ni diwu diw moom la diwoo waaw ah, borom lan laaj ko lañ nag ku jonjoog moom bu la neexee nga xeeñ ah, waaw waaw waaw itam mooy jigéen boo xam ni góor gu ko romb ci jigéen boo xam ni moom ngay defi njëkki wala nga di ko def koy diisool ci sa dund wala ci sa kër doo ko fa bëgg a bàyyi ndax lu mu la tëralal mu jaar yoon bu ko defee kon nag góor genn wàll la jigéen genn wàll la kenn ku ci nekk rekk yàlla nee na la sa genn wàll la sa morom di rafetal na la ko mottalee jigéen na nekk genn wàll waaye genn wàll gi ci des na ko rafet rafetu góor ñoo mottali na góor di genn wàll waaye genn genn wàll gi ci des na ko rafet rafetu jigéen ñoo mottali waaw bu ko defee bu boobaa nag yàlla jox leen ci alquran ni leen man amila salihan minkum min dakarin aw unsan wa huwa mumin fa lanuxiyannahu xayatan tayibatan wala najiyannahum ajrahum bi axsani ma kanu yaamaluun yàlla nee na ku def lu jëkk te jaadu nee na yàlla na ngay góor yàlla na ngay jigéen sax nee na bu keroogee nga xam ni am naa nu ma mëne te mooy ñaar mën naa ko garantir mën naa la garantiral ni sa dundu àdduna di nga ci prospère sa dundu àllaaxira di fa heureux xamula ne àdduna kenn du fi heureux dañ fiy prospère mais àllaaxira la ñuy heureux je suis heureux ok je suis fier kooku àllaaxira la mais fii prospérité rek nga fi am moo tax baat yi sax di ko seet wu ma ko ci baatu tubaab bi ni ma ko dégg man ci sama falsafa alquran laa ko waxe waaw bu ko defee nag yàlla nee na góor jigéen bu ñu mottalantee ci yiw nee na mu garantiral leen prospérité ci seen dundu àdduna mais dina fexe ba ñu heure ëllëg ci àllaaxira bu ko defee nag kon bu ñu amee prospérité bi nag fekk ngëm nga dugg ak jaamu yàlla ga nag troisième étape bi soog a ñëw ñu jël loolu nag investir ko ci biir société bi mooy jur nag seen responsabilité yàlla jox leen aaya ba wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma yàlla nee na bokk na ci yu baax yim leen defal fexe gi mu fexe ba góor mu wut jigéen ci wetam jigéen boo xam ni bis bu bëggee jaaxle ba mu jànnexe rek mu delloosi ko kon nag nga xam ni kon jigéen tâcham ci biir famille ak ci biir société la ci war a jiitu mooy mooy stabiliser ko ne stabiliser góor na ko équilibré waaye boobu nag dafa am nu muy tëdde gisuloo bato bato benn navire bu ñëwee ci quai bi ah, bu ñu bañee duus yi yóbbu ko dañ koy takk ci ay borne xamuloon ni bato ba ëpp doole borne ba waaye nangu responsabilité borne bi moo tax rek mu bàyyi ñu yeew ko ci borne waaye bis bu fekk woon rek yóbbaale borne ba du dëgg moo ko ëpp doole waaye nangu responsabilité borne moo tax mu nangu mu téye ko waaye bis bu fekk woon u borne ba jóge fa wala buum gëleen liee jóge fa um ji nag mooy mariage entre l'homme et la femme bis bu góor brusque jigéen rek wala mu siif li mu moom ci moom rek benn mu yàq existence su jigéen yépp wala li leen boole ci diggante bi te mooy mariage mariage ba yàqu kon nag na ko góor bàyyeeg responsabilité am lu mu autoritaire autoritaire na bàyyi nag jigéen am lu mu moom te mooy rek bu ko waree ñëw ni ko te nga def nii mu jaar fa ànd ak sago dal def la mu wax ndax am na foo xam ni bu tolloo moom itam moo naan jaaral fii rek jigéen jaar ca waaw ko defee kon nag entreprise bi bokk muy nit kon dafa laaj ñu wutal ko surface boo xam ne fa la ñuy defee investissement bi moo tax muy àdduna àdduna googu ñu war a defe investissement bi fokk ñu urbaniser ko ku bëggee urbaniser fokk nga am géomètre am architecte góor ak jigéen nag ah góor mooy géomètre mais jigéen mooy architecte waaw di ngeen dinañ ci ñëw pour mu gën a leer parce que dañu wax ni yàlla bind dund waaye jigéen ay séddale dund lu doy waar la yoonu góor newu ci yàlla bind dund mais jigéen a koy séddale moo tax mooy architecte waaw moo tax yàlla nag ni kon nag góor bàyyil xel jigéen lu tax hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna xamuloo ni góor lu mu bari bari tiitar bu solul mbubb rek ñu yooxoo ah dof baa waaw góor bu solul mbubb ah rek def ni dungu na ko ndeyam jure woon ñépp yooxu ni dof baa yàlla nag joxe ko ko ci boppu façon ni ko jigéen mooy mbubb góor bu ñëwul rek boo watul ñu yooxoo ni daf baax la waaye jigéen it góor yi mbubbam moom it bu ñëwul rek bu watul bu génnee ñu ne ah daf baax la kon nag ñoom ñaar foog kenn ku ne dem dem solal sa moroom dañu ni nag ku fàtte fa nga fa nga jaaroon ba nga yéeg ku fàtte fa nga jaaroon ba ngay yéeg bis bu fa jógee rek bis boo waree wàcc jar xalaat waaw waaw ah, ku yéeg ba yegg te war ngaa wàccaat yéeg rek daal di fël la nga woon war ngaa xalaataat bis booy wàcc waaw ah, waaw mu mel ni kon nag góor mooy supportu jigéen waaye jigéen it mooy supportu góor waaw ah. bu ko defee kon nag loolu mooy introduction bi léegi nag ñu jox leen détail bu ndaw ci l'ensemble liñ leen jox nan ngeen ko mën a dégge bu gën yaatu xam nga nit biñ leen tudd nit fekk buñ leen nit nga ne man yàqu na parce que li nga ni man du yow lii nga teg sa baaraam jëmm la mais yow ana nga loolu mat a seet fu nit ne moo taxoon benn philosophe allemand daan yor rek benn làmp bëccëg bëccëgu ndara kàmm mu taal làmp bi ku mu ñëw rek nit la nii xool la daal dem kenn muy yéen ndof bii nag bëccëgu ndara kàmm ku ci nit mu ne wallay wallay du ma ndof ñu ne ko waaw looy nit bëccëg mu ne je cherche un homme nit lay set ndax nee du ko gis ak du bëtam ak nopam rek nit la wa doomu aadama ye bari waye nit ñi bari wuñu wa mu ni nit lu am la loo xam ni bu ne foog mu jël distance ak jëmmi boppam xamuloon ni nit bu jëlul distance ak jëmmi boppam rek du sotti te moo di nit dox lu sori dem ca yàlla enraciné ci moom bu enraciné ci yàlla ba noppi nag fa mu taxaw mu def ouverture pour bàyyi personne am ñëw moo tax buñ leen ne ana nit nga ni maa ngi nii rek yi déedéet parce que yow ne woo fi yaa nga feneen léegi nag fokk nag loola taxaw fa mu taxaw di téléguidé jëmm ji def ci yow lu ko mooy rek tarxiis yomb la moo tax gis nga nit pire genre garde de corps la nit garde de corps la mooy protéger yaram na xamni ni atteindre yaram mom du tax ñuy wax mais un président ñi koy sàmm ci wetam bis bu ñu leen atteindre moom du tax ñuy wax moo tax nag kon garde de corps moy nit waye yaram li muy doy war doy war bis bu nit baye ñu atteindre yaramam rek bu ñu paré ci yaram bi ci mom lañu jëm motam nak ñu ni nit mom rek la yalla may fi mu nekk tay mu jëli demb ñi mu fekkewul jëli ëllëg ji mu fekkeegul man leen indi ci tey nit rek ko man parce que bu dee yeneen yi dañ naan le passé c'est le passé l'avenir c'est l'avenir kon nag yow li la intéresse rek mooy fi nga nekk tey le présent ñu ni déedéet booba yàlla duggul bu yàlla duggee da ngay dem jëli démb ga nga fekkewul fexe ba jëli ëllëg gi nga fekkeegul boole leen ñu ñëw tey ci sa tey moo tax ñu ni nit démbam ngénte fekkewu ko ëllëgam bàmmeel du ko fekke lu mat a bàyyi xel la nit démbam ngénte fekkewu ko ëllëgam bàmmeel du ko fekke kon bu la ñaam ñi saalit loo ngénte jot na woo ñi ci dëkk bi yëpp woo naa parce que booba ngénte kenn xamul fu mu ne kon nag bu loola jagul nga ñëw bëgg koo defere ngénte doo dem ëllëg itam la nga war a doon ci kanamu yàlla yowmal qiyaama kooku dee du ko fekke kon bu la taxee saalit ba feebaree sax mel ni yàlla du sa kilifa mais nga yàq ce ligue parce que personnalité nit mo ëpp dee des victoires la mais du échec kon nak je n'ai pas peur de la mort mais j'ai peur de mourir Ah, nit du ragal dee du ragal dee waaye li muy ragal nak mooy dee fat ko lu mat a déglu la diw fatuna bobu dafa mënul boppam mais ku mën sa bopp dee du la faat am na ñoo xam ni keroog ba ñu duggee bàmmeel la leen nit ñépp xam loolooy waral ngay jaaxle fii doo jël sa oto ni maa ngi seeti président de la république mu fajal ma soxla sàngam da ngay jàpp ba sell aw yoonu Tiwaawan wala nga aw yoonu Tuubaa waaw waaw fekk koo xam ni bañ koo suulee kenn xamul kan la kañ la nga àttan faa toog naan ko ñunug ñunug nag nii la demee naa la demee nangam laa bëgg kooko boo yëgoon ni faatu na doo fa toog di ko wax sa soxla moo tax nag nit bu bëggee daj boppam boobu nga xam ni ngénte fekkewu ko te du ko fekke نجل بابام سوب كو تي گن گن والكو امولوني دوغوب خيول خي رك نك لا دو ها امنا فمو جار دي اه فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم يلا النينة شفت نينة ما دي يسوف يلا نينة ما دي يسوف ni ko maa lay yabalal jiw nee na mu jekkas ndiko ba mu jekkas ndiko nee na ma déey ni ko dafa am sëy bu ma bëgg a def te comme yaay bàyyi bi nga nga dem toppatoo ji sëy bi nee na comme yaay ji nag mooy géej géejay yaay ji jantay bàyyi mu ni leen seen doom bi ñoo tuddee ndox ndox moom laa bëgg a maye nee na jant déeyante géej mi yaay ji ñu yebal nijaay ja te mooy ngelaw ni ko demal nga may xale bu góor baag bu jigéen ba te mooy niir yu góor yi niir yu jigéen ñi ah ba mu demee moom ngelaw comme mooy nijaay ji ba mu defee alxayri ja waa xay bu seede góor ak jigéen ñu jébbale leen ah nee na tabala ya rëkk te mooy dënn ya ni réel na yay jëpp te mooy melax gi ne tay doom judd xëyu xëy lekk ko jox nga ko jongama nee na mu jël dugub ja dugal ko ci biir gënn jël guur ah xaw wal ko wal ak soq bu ci jëkk bojju de waaw boo bojjee ba noppi nga soq boo soqee ba noppi nga wal de boo walee ba noppi nag looy def la jaar fële jaar fële am na loo xam ni doo ko jël ndax loola mënul laax nga jël la baax nag te mooy soq ba ci boppam ah dem wallu ko ba mu nekk sunguf nga jël ndox mu dellu siwaat de foog ndox dellu siwaat nga defaat ca muutooy nga nga nga araw yaa xam dangay ngay fonde yaa xam da laax waaw waaw Hah? sëriñ sëriñ Pape Malick nee na nee na ndongo yëpp mën a togg cedara <laughs> ndax nee na daal loolu ku newul ci daara te ko fu ñu koy defee xamuloo ko waaw eh, mais bu ko defee nag foofu lañ koy jële nag ñu jox ko jong mu ju mën la mu mën mu def la mu cay def bu pare ñu taajal la ba ñu ci jaar la dugub ñu jaar fa comme gàncax la ñu jaar fa mbokkam rab rab mooy itam jaar ko foofu ba diggante deret ak yàpp yàlla génn fa lu weex tàll لبنا خالصا سائغا للشاربين ها مجل سو موما سيفي كل لاخ لك دادي نويني الحمد لله رب العالمين يلا نينا بوبا لا ديلو سي فوك نيتي نيو بوات كو جيغن نك مومي تام جار كو في نيو جار دوغو سي موتاخ سو ما نكوي سيفي موم لا نكوي جوخ سي وينو يايام Good. waaw moo tax wenn yaay beneen asar la biberon mënu ko remplacer bu ko defee nee moom itam buñ ko jaarale foofu ba bees ko ba def yëpp ba noppi nee na lay génne ci moom nag loola leen nit ña soxla waaye la ñu beesee teg fële mooy yaram wi jarul mu yàq liggéey nag waaw bu ko defee kon nag bu bëggee nag jaar boppam foofu moom nit fa gën gi muy dëbbe boppam gënnu diine lay doon diine nekk gënn gi kuur bi xel lay doon xeer xel mooy nekk gënn euh, kuur gi waaye loxo yu koy téye nag ñaari ñaari cati pas-pas lay doon waaw parce que pas-pas mësul nekk benn booy fas ak ñaar ngay boole mën nga ko jàppe benn loxo wala bala moo baax nag mu nekk ñaar moo tax nag pas-pasu nit ñaari laf yi mooy téye kuuru xel jël nit dugal ko ci gënnu diine buñ ko walee ba pare ci moom rek bu génnee kenn dootu ko laaj ndax di wéy sa baay waaye yeneen ci bay taxaw nekk baayam day ñëw rek judd léegi nekk liir jóge ci liir gi dem ba nekk xale lu góor jóge ci xale lu góor nekk waxambaane jóge waxambaane daal di nekk borom kër jóge nekk borom kër daal di commencé màggat bu màggatee ba noppi ba xëy xëy rek ni kësan dara yëngootul ñu ne ah nañu yóbbu ca këru ñaareel ba nañu yóbbu ca wujj ba wujj ba te nit jëkkër la jëkkër la ñaari jabar la am jabar benn bi mooy mooy mooy adduna beneen jabar bi mooy mooy dee waaw bu ko defee nag kër gu mag gi mooy aawo bi mooy bu adduna bi waaye këru ñaareel ga nag foofa moom dafa wéet waaw ko koy sa ñaareel nag waaw bu ko defee nag comme ñaari kër yooyu la am foog nag bu moomee ci biit na bàyyi xel ni dana moome ji jëbale waaw te dépense su booba nag bokkul ak dépense su bii kon bu ko waajalu rek bu demee borom fay ah fay waaw waaw nit bu waajalul boppam ba dem bàmmeel yàlla ko ko doon xaar yàlla fay moo tax nit dana faatu te du gis boromam waxuma la ne dina faatu te du gis boromam mais di nga gis ko faatu ba am ay at te du yegg bari sax ndax na bu faaso neexul yàlla alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim ak alladina tawaffahum almalaikatu tayyibin sëriñ cheikh nee malaaka yàlla dina ko yabal mu ñëw tiim nit rey ko ba noppi tiim ko rek dootoo fa néega jóge tiim néewu ba rek naan est ce que est ce que ndax ni mu ko impressionné moom malaaka bi waaye nee na dina rey nit ba noppi rek ba noppi rek bu bu sañoon na rek ciipatu yàlla sax ciipatu ko ni ko mais kii jarul woon di déplacé wu parce que danoon noyyi mais dundatul woon dundatul woon parce am na noo xam ne ku ni mel dundoo da ngay noyyi rek waaw waaw mu ni kon nag nit bokkoon foofu mu jaar noonu fa yemalee boppam ci dundam rek du dégg boppam ndax ki def loolu ku ne xam na ni du def lu mu amul fu mu ko teg te li gën a metti yàlla mooy yàlla li mu dugganteeg nit te li mu gën a fonk di ko defal nit bu dikkee nit amul baat bu ko cay tegal lu dul hasard baatu azar yàlla na nee na euh, nit war na rus di ko tudd waaye nag nee na ba tey du ko ko yedde parce réeram a ca toll ndax nit comme ci espace ak barab lu juddoo defe na ni lu dox rek barab ak espace war naa am ci yow yoon te comme yalla nak mom temps du ko conditionné espace du ko conditionné de ma djum wax len baraf ak espace ben bi la temps ak espace la bëggoon wax ñaar yoyu duñ ko conditionné nit du ko conditionné rap du ko conditionné les espèces duñ ko conditionné comme nak nit xamul lolu. bu yàlla génnee décision te décision ba yooyu conditionné wuñu ko réere gëm koy réere moo tax le mot rek la fa mën a indi waaw moo tax nga xam ni kon yàlla léppam priorité li ci nit seulement li am solo rek mooy na ko nit bàyyi xel ndax léeg-léeg nit dana bëgg dara ci yàlla bu ko yàlla deful rek mu mer yàlla lu tax ma ñaan la nangam mayoo ma ko yàlla lu tax ma bëgg nangam defaloo ma ko daal di mere yàlla di xatar xatari nag di nga ci gis ku mer ba du julli waaw ah. waaw di wane ni dafa mere yàlla ba a julli waaw ah. léeg-léeg nga dégg ci seen yi ñu ku la ko wax am problème rek daal di commencé daa di kërëb kërëb it julli fan yooyu wala ku am examen waaw te fan yooyu yëpp kay moom bis bu ne dina fëgg yàlla waaw waaye bu paase nag mu fàttewaat yàlla nag nee na man man duma seen sëriñ du ma seen euh, du ma seen euh, planton yàlla nee na jullit du ma sa planton ba boo soxlaa dara rek nga may yónni yàlla neena na am na jaamu yoo xam ni du jaamu da nga am loo soxla rek bëgg ma yónni ma jëlal li ko motax nga dima ko defal waaw bu ko defee kon nag nit bu bëggee dégg yàlla bokk am na yeneen bëgg yu mu war a xool yàlla ak beneen nopp bu mu ko war a dégloo moo tax Ali Ibn Abi Talib mooy le quatrième calife du prophète dañ koo gis ni muy jëfandikoo rek nit ñi dem ba xam ni kii bokkul ak nit ñi mu nekk Nyouni kwa yo, ni nga men loka waral. Mouni paske, dounit eggo ou somerek la sakya. Nyouni kwa, mouni egna ou somer. Nyouni kwa, mwen fanmwen somer bi, mouni yalla. Nyouni men nan nga yege chik somer pi te gisou loko. اسكت اثنين هل رأيت ربك قل أو أعبد ما لا أرى إنك وكيف تراه من إنه لا تراه العيون ب... ب... لا تراه العيون آه بالبصر وإنما تراه القلوب بالبصيرة est-ce gis nga yàlla mi nga mi nga ni yegg nga ci moom mu ne leen man mag mu day nii man xëy di sëgg ko si gi te kar ka koy defal gisuma ko ndax ñàkk naa fayda noonu ñu ne ko foo ko gisee mu ne yàlla bët du ko gis nopp bii du ko déglu mais xola am bët yoo xam ni somnifère bi ko jàpp bis bu dose bi jeexee ba mu xippi rek jàkkaarloog yàlla nopp ba déglu ko yàlla yàllay wax ak moom par force loo xam ni kenn du ko yëg ndax bis bu ne nit ni li ma sama conscience wax mais foo ko déggee conscience bi ngay dégg foo ko déggee est sa nopp bi moo ko dégg hmm? xel mi nga gëm ni moo lay tëral foo ko gisee beneen bët moo ko gis beneen noppit moo ko dégg waaw bu ko defee kon nag nit fokk mu

est ce que l'islam mënuñu ko cee dindi te bis buñ ko ci dindi wala nit ñaal ko parce que nit origine am ci yu abstrait rek la te ku xeeb sa cosaan nag dootoo dem te nit fa mu jóge yépp lu abstrait la fa mu jóge ci al alamu ruhani kenn gisu ko alamul xayb la ba ñëw dugg ci biir yaayam di fa formé la mu fa nekk yépp kenn gisu ko dafa nëbbu nit yi bu génnee fii ba dem ba jógewaat fii di demit kenn du gis ba muy dem dañuy dugal ci bàmmee rek ku ne toog di jàng lixlaas mais kenn xamul fu mu jaar fa muy taxawee ëllëg ci kanamu yàlla ñuy jëfantee kenn toggul fii gis ko koo xam ni fa nga jaar yëpp dafa abstrait nag waaye boo nga xam ni la abstrait moo lay defar bis boo ko bàyyi rek sànku nga oto nit gis nga lislaam sax boo yemee ci sharia rek tardé waaw foog nga dugg xaqiqa moo tax ku duggul ci biir tariqa rek ñëpp dem bàyyi la waaw waaw kon nag étudiants yi weddi tariqa yi nañu seetaat seen bopp parce que la ñu jàng ñoom ñun jàng nañ ko baraw leen te teewul ñu gëm tariqa waaw waaw te li ma leen wax maa ko xam du tiitaru du dara waaw parce que li ma jaaxal mooy ñoom da ngay gis ñuy weddi lu ne di weddi sëriñ si di weddi lu ne ñun itam la ñu war a def def nañ ko parce que sujet yi ñu war a weddi yépp ñoom ñun organiser nañ ay table ronde mais kuñ cee invité nga daw te lii la mën nag ku ñeme nag da ñëw ci géew bi na ñëw ci géew bi ndax ci gannaaw dañu organiser benn table ronde ci planning familial ay spécialistes ñëw fa waa ASBEV ñëw fa ay médecins ñëw fa ak ay sages-femmes ñu laaj ñu ci affaire bébé éprouvette ma ni l'islam tudd na ko nga moo tax nit ñi duñu seetlu sax nit buy wax dañuy yàkkamti mu daaneel ba ñu ni ko te xamuñu sax li mu wax xam nga nangam tudd nañ ko ak nangam cautionné nañ ko ñaari affaire la l'islam tudd na bébé éprouvé mais ndax cautionné na ko nag ay condition la am na ay étudiants ak ay cadres yoo xam ni ñoom rek la réew mi gëm léegi def seen conférence ay aéroport ni dañuy def conférence pour weddi loola conférence ba ci xuloo la mujj parce que kuy weddi dara wala ngay défendre te yow xamaguloo li ngay wax foog ci ay erreur ngay ngay ngay def te ñun lu ñu leen wax rek am na fu mu tegu waaw parce que ña ñuy jàngal du ñi fii waaw أفنيت أسباب الحياة دراسة وبلوت كل وسائل العرفان وقد انتهى كل لحل واحد من ان اطالبه بكل اماني من لن بان بروفيسور لا عم قطبي ابا العباس يا ابن محمد ما جيس نغا فوق نغا خام فينومين يويو خامولو باسكو بيبي هيبروفيت يالا كو جيكي ما واخ لين كو تاي yàlla ko jëkki ah yàlla ko jëkki d'abord ci Adam jóge ci ñëw ci Hawa jóge ci ñëw ci Isa xam loon ne banque de yàlla ko jëkk a créé xam loon ne am na nitu yàlla yoo xam ni du liy jóge ci góor gi moo leen di jur bu góor gay ànd ak jigéen ja la yàlla yónni malaaka ba yor esperme ba ànd ak turu yàlla ba balaa fécondation bi am rek mu yegg waaw waaw ko defee bu dikki rek bàyyi ko mu dugg ci seen biir waaw ah wa kayfa yakunu lii waladun walam yamsasni basharun walam aku baghiya waaw mariama ba malaaka bi di génne ko yàlla ma yónni mu ne ko pour lan mu ni ko nee na ma jox la doom mu ni ko man jigéen jigéen aw ma jëkkër te mosuma saay-saay nga ni damay am doom fu mu tegu mu ni ko yow itam bala Zakariya daan wax bu ma san fekk lekk te biir temple ba lekk ga mu daan fekk ba mu la laaj laajee foo koy jëlee loo ko waxoon ان يكون لك هذا يا مريم بام لوكو واخي ان يكون لك هذا لوكو واخ منكو دما نكو قالت هو من عند الله منكو كذلك هي ويكم واو سنغوت نعم قال كذلك يا ويتم نغي واخا وون زكريا نيكا ليك غا يالا لاكو جوخ كين اندي ووكو يا ويتم نون لا يالا مانا جار با جوخ لا دوم تي كين دوكو اندي واو منكو كون نك داكون نا سي نونو موتا فوفو لا كومونسي day da ngay gis ñoo xam ne rek xëy na léeg-léeg pour wax la Sénégal metti na trop waaw ndax itam da ngay bëgg a jàppalanteeg nit ñi def lu baax mi tour bu ne lañ lay joué waaw tuur bu ne lañ lay joué waaw su ko defee nag boo waxee ñu naan diw lii diw la te fekk na la nga xam yëpp boo ko wax naa dina tukki waaw su ko defee yooyu yëpp war nañ koo seet waaw nañ koo seet ko defee ay bébé pour véteg yu mel noonu affaire planification familiale je crois que yooyu yëpp ngeen delloo ci biir archive yi ngeen ci mën a jël yeneen euh, connaissance jarul ñu koy delloo si bi mais dañu leen doon wax rek ni Sénégal mel ak ñi fiy posé wu waaw bu ko defee kon nag comme nit yu abstrait la jóge fokkit yu abstrait yooyu it mooy mën a contrôler dundam pour mu mën a jaar fi neex yàlla moo tax kon yii ñu jàpp ni moo am solo amul solo pour yàlla gis nga judd du réalité dund du réalité dee du réalité yëpp ay symbole rekk la mais nit ci boppam mooy réalité parce que mooy loo xam ne foo ko songee rek fekk ko fi mais loo xam ni temps la am bu temps jeexee dootu fa ne du réalité moo tax bind kii yëpp ay symbole rek la waaw moo tax muy laaj est-ce que yi lay façonné est-ce que ñoom la wala du ñoom nee na ndab li ngay téye di lekk wala nga téye ko di naan ndax ndab la meññent bi ngay wutti ci garab gi ndax meññent la nee na fleur bi ngay dagg ci plante bi di ko fóon di jël parfum bi ci ne est-ce que fleur la nee na bi ngay seen guddi mu di la piis ndax bidiw la nee ndox mi ngay gis nee na mu lay daw di la senetal tuuti ndax est-ce ndox la mu lay laaj ndax yooyu yëpp li nga ko tuddee est-ce ñoom lañ proprement dit est-ce que ñoom lañ ndax loo xam ne boo ko tuddee nangam bu neexee yàlla jamono dootoo ko gis ah kon du réalité symbole rek la mu ni yow mi ni yaay nit li nga ni mooy nit ci yow est nit la est-ce que li nga tudde suba suba la est-ce que li nga tudde ngoon ngoon la est li nga tudde guddi guddi la parce que yooyu yëpp du ay réalité parce que comme nit dañu ko jox responsabilité foog nag programme am am ci nu mu tëddee parce que nit anarchie jigu ko foog mu liggéey ci méthode bu dee liggéey ci méthode nag comme chaque chose en son temps bëccëg bu ne la mu war a def ci waxtoom bu ko fa deful mu yàqu moo tax yàlla séddaleel ko ko lii mu tudde ko suba mu xëy lii mu tudde ko ngoon mu gont lii mu tudde ko guddi mu fanaan lu ci nekk nag ak liggéeyam lu mu ca perdre rek boo watuwul du dem muy laaj ndax li ñuul ci guddi gi dafa ñuul wala déet est li weex ci bëccëg bi dafa weex est-ce li bleu ci asamaan bi dafa bleu est que am na amul mu ni est-ce que géej gi lay gëdd ay duusam est li mu lay gëddee moo ko moom nee na ngelaw li lay provoqué di yow di yëngal garab yeeg say kër ba sa fit di dem est moom moom doole ji mu lay yëngalee ah nee melax ji lay jéem a bett nee na dinaan tàyyi sa fit di dem est li muy melaxe moo ko moom mu ne la est-ce que làmmiñ bi ngay tudd ak langue bi ngay wax yaa ko moom walla yëfi jaamur la mu ne est juddu gi nga juddu nekk xaleel jékki-jékki rek di raam nee na est-ce que lan moo manipuler say muscles baram ba am jóge ca raam ba nee na mu conditionné say organe nga commencé jóg di dox ah nee na est-ce que cër yooyu nga yor yow yaa leen moom wala déet mu ni boo toggee rek mu neex la nga jël sa baaraamu sànqalañ di ko yëngal est que fa nga koy yëngale yaram bi yëpp yëg nañu ni mu ngi yëngu walla déet ak ndax la ko yëngal yow la neex nga yëngal ko wala moom la neex mu yëngu man la ci li nga tuddee fleur est fleur la donné fleur d'où imaginer montagne d'où imaginer gëléem d'où imaginer gaynde d'où imaginer lan la ku la ko jàngal ba nga xëy rek tudd fleur te naxoo sabab kan la wa allama adama al asma kulla. yàlla nee na ma jëkk ci yéen commencé ko ci seen maam bu jëkk ba muy aadam def ca moom la ma def ci moom jàngal ko mu jaar fa mu jaar yéen it ngeen di ko donne na ba tey kenn ku ne di wax sa soxla te doo juum mu ne kon bu ngeen amee diplôme itam am ca loo xam ne war ngeen ma koo féetale ndax moo gën a rafet waaw waaw mu itam nit am na leen moo ko sonal nee na bi mu juddoogul mu ngi woon ak boppam waaye bi mu juddoo la boppam dem looloo tax fokk mu am ay bokk yu ko taxawu ñu dem seeti boppam moo tax yàlla bëgg ñu yar doom yar ba mooy ñu permettre ko li ko réeroon bi mu juddoo bu màggee rek mu retrouver ko bala muy ñibbiwaat bu ko defee kon nag nit dëgg-dëgg du doxe tànk sëriñ mu niiru rahmatullahi alay dafa wax nii ku ni damay xaar gaañay dem ci yàlla ba ñuy dem ma ak ñoom nee na ci tardé ngay dëkk ndax nee na ñay dem ca yàlla duñu doxe seen tànk seen